mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant yàlla ci dajawaat ci néegam bu tedd bi fas yéene jël benn bind ci lu aju ci suñu diine ci wàllu fiq ñi ngi koy sukkandikoo ci téere bii di minhajul muslim bu abubakar jaab jaabir aljazairi yàlla dogal na tey jii moo nekkoon juróom ñeenteelu fan ci li nga xam ne mooy weeru muharram kon incha allah ñu ngi jëm ci fukkeelu fan ci weeru muharram nañu xam ni ci guddi gu mel ni suñu guddi tey gi ca la yàlla dogaloon jox ndigal bani israil ñu génn Égypte ca noot ga leen firawna nootoon yàlla wërsëgal leen xaral leen géej ga musal bani israil labal firawna ak armeem bis boobee bu ñëwaatee yonent yàlla Muusa jëloon ko di ko woor ngir sant yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it sant xeetam ñu koy woor ngir sant yàlla mu bégalaate ci ni koo xamee ne danga woor ashura at mii nga génn mboolem bàkkaar yi nga ci defoon suñu borom yàlla dala koy baal kon suñu bisu suba bi mi ngi noonu koo xam ne amul ngànt nga woor ko ca bokk na ci it jublu ci ni yaa ngi sant yàlla ci ni muy jëlee dëgg di ko teg ci kaw ay neen ba doomu aadama yi mën a sax ci njub noonu mu dimbale Muusa noonu la dimbalee woon suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ca ay noonam looloo tax lislaam yegsi ci ñun tey kon sant googee jurit ñépp la ñeel ñi ngi nekkoon ci buntu njaay ba yegsi woon ci li ñuy tuddee ak tànn ci njaay jàngoon nañ ca ni ñi nga xam ne dañuy jaayante fii ñi ngi nekk ci place ba da ngay gis ne mën nañoo xaj ci njaay mi nu mu leen neexe maadaama teqale kooguñu suñ joxantee it ab délai boo xam ne ku ne da cay seet délai boobu tànk jeexul mën nañoo xaj loole ak it buñ ca gisee loo xam ne nii ak wor la gu bokkul ak gañ waxoon tey ci wàllu xiyaar boobu ñu war a jël ñeenteelu bunt bi ma xamul yaa ngi ci page trois cent trois cent deux trois cent un ñu yor mool bu bees bi ñu xool page trois cent un ci ñeenteel bi non mooy isa dallasa albaiu fi lmabia mi ngi noonu ñeenteel bi ci wàllu xiyaar mi ngi noonu su ko defee bu dee gis nañ ko day wax ni iza dallasa albaiu fi lmabii su dee ne daa am lu mu laq aji jaay ja ca la muy jaay bi an azhara alxasana wa axfa alqabix mu mel ne mu feeñal la rafet nëbb la ñaaw aw azhara alsaaliha wa abtana alfasid wala mu feeñal lu baax la nëbb lu yàqu la aw jama al laban aw jama al labani fi dari shaat wala boog mu dajale lii di sow ma ca weenu xarma ñett yi yépp bu ci dara amee fa inna lil mushtari al xiyaar fi lfasqi aw l imdaa su boobaa day ka jënd am na tànn ci teqalee firi njaay mam firiwoon wala mu saxal njaay ma kon mbokk day wax fii rek ni ki nga xam ne day jaay dara bi mu koy jaay moo daa di nax ka nga xam ne da koy jaay ci loo xam ne nii bokkul ak réalité ba am masalan rasul sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ca marché ba benn waaye ngi teg ay keesu peppam di jaay bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee dugal loxoom ci kees gi yëkkati la ca suuf yépp tooy xépp mu ne ko waaw lii nag lu mu doon mu ne ko lii day daa tawte mu ne ko ana lu tee woon nga ñëw teg ko ci kaw ba ki koy jënd xam ne dugub ju tawte lay jënd lu mel noonu caamin yi jënd mango puut xam nañ ko léeg-léeg nga dem ñu jaay la benn keesug mango goo xam ni ya ca suuf yépp dara baaxut ñu jël mango ju rafet tegal la ca kaw bokk na it loo xam ne dañ ko daan def mooy ki bëgg a jaay am xaram xar mi pour won leen ne daa bëri soow day toog ñetti fan yoo xam ne du ko rat ñëw na jëla ko jaay nga fekk ween yi fees del boo ko rattee gis ne la nga foogoon amul loolu li gën a siiw ci ñun Sénégal mooy li ñuy tudde sol mooy bisu ta bu ñuy jaay xaru tabaski yéen ñëpp yéen a ko bokk gis dañuy jël rakkal ji sol xar yi ba biir bi na dadd ñu ànd ak moom ci bedd yi nag yow mi nga xam ne xamuloo xar soo ko gisee jàpp na ah xar mu duufe ngi nii waaye bu fanaanee sa kër chance ba nga mën a am mooy mu sotti li nekkoon ci biiram yépp nga gis réalité bi soo ñàkkee chance sax day dee benn yoon loolu kon mi ngi noonu moo tax yonent bi alayhi salaam doon wax naan boo jëlee sa bind laa tasurru al ibla wala al ghanama fa man ibtaaha fa huwa bi xayri nazarayni baada an yahlabaha in shaa amsaka wa in shaa raddaha wa saan min tamr da doon wax ee waay bàyyi leen dajale soow mi meew mi ca la nga xam ni mooy ween ya nekk ca gileem ya xar ya koo xam ne dañu ko jaay bàyyuma bu mel noonu mu demee ba mu ko rattee la gis ne kat lam ca foogoon amul ñaar yi lu ko ci neex def ko su ko neexee téye lañ ko jaay continué ko moom su ko neexee delloo ko ca boroom boole ko lii di saa ci tamru mu da tolloog ñaari culoy tàndarma mu delloo ko xaram wala gileemam jëlaat ab xaalisam loolu kon la ñuy wax ci wàllu ci jënd ba pare mën a delloo muy xiyaar bokk na ca loolu amma juróomeel bi mooy ida wajada bil mabii aybun ينقص قيمته قيمته ينقص قيمته ولم يكن قد علمه المشتري تك جند موم خمكو وون وردي به غرمكو حال المساومة تجمن جميكي وخالي فإن للمشتري الخيار في الإمداء أو الفصل كجند دانكو تانلو su ko neexee wéer njaay ma su ko neexee daal di firi njaay ma ca loolu mbokk jullit mooy képp kuy jaay nit dara da ngay gis ñoo xam ni dañu am ak kër kër gi fu ne mu xar fa plafond yaa ngay xararari di sen ñu xëy peinture ko ba mu rafet woo nit ñi jaay leen ki kay gis ci zahir bu ko jëndee bu ko fa nawet fekkee rek mu xam ne def na njuumte bu rëy a rëy loolu nag bu dee dafa dem noonu bu doon atti l'islam mi ngi fi waa ji am na droit dem nangu xaalisam maadaama réalité kër gi waxuñu ko ko oto bi défaut bi mu am mooy am na ca moteur ba am na ca nangam loo xam ne défaut bu feeñ la nga ñab ñabal ko ba jaay ko waa ji xamu ko heure bu ko xamee am na droit ñëw génn ca njaay moomee looloo tax boo yoree sa téere mu ne laa yaxillu li muslimin baa min axiihi bayan fiihi aybun illa bayyanahu lahu lu dul ne da ko koy leeralal wa li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi saxiix man gashana fa laysa minna képp ku ñu nax war ñu bokkul ci ñun ca mbokk mi ngi noonu heure booy jaay matériel kër la oto la machine la lu mu mën a doon kan kay jaay ne ko ay li yéwén défaut bi de mooy nangam ak i nangam moom bu ko jaralee jënd ko kooku mooy ki xam bu ko jarulul nga xam ne jarulu ko yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne dañoo nax te mooy fexe ba jaay mbokkum julitam loo xam ne wóor na ne ne wóor na ko ne défaut bi ci nekk waa ji bu ko xamoon du ko jënd mu fexe ba buux ko ko jaay ko ko kooku mu ne bokkul ci julit ñi kooku bokkul ci julit ñi ni ngi noonu ca itamit bari na lool di am rawatina ci jaaykatu soow yi da ngay gis ne ñu bari ci ñoom dañuy jël sunguf mee bi la ñuy wayal jaxaseeg soow bi nga jàpp ne soow piir lañ la jaay fekk jaay jaay ñu la soow piir fekk jaay ñu la soow piir te hadis bi suñu delloo ci siira dañuy gis ne mooy cosaanu Omar ibnu Abdul Aziz Omar ibnu Abdul Aziz ki nga xamee ne nii moom mooy Omar ibnu Xataab moom moo doon dox guddi dégg benn xale bu jigéen naan yaay ji yaay bàyyil soow mi ngay ñar yonent bi alayhi salaam nee na kuy wor bokkul ci ñun Omar ibn al-Khattab bi nga xamee ne nii xëy na laaj waaw jànq bi dëkk kër sàngam ñu wax ko ni la mel ni la mel mu daal di ñëw ci doom yi ne ana kan moo may tànk dem takkal jànq jànq bale benn doomam di Hashim dem takku ko sëy boobee ca la yaayu Omar ibn al-Aziz soso looloo tax Omar ibn al-Abd Aziz yaayam sët direct la ci Omar ibn al-Khattab waaye li taxoon Omar dabuj ba tekki kooku nga xam ne mooy maamu Omar ibn al-Abd Aziz mooy tere gam doon tere yaayam ci muy njar soow mim jële ci bàyyi may di ko njar di ko njar mu ne ko loolu ak wor la ci lislaam da koo tere soo ñëwee sa juróom benneelu bind bi nga xam ni day may aji jaayante yi mën a dellu gannaaw ci seen jaay mooy ida ixtalafa albai'an fi qadri saman awil aw fi wasfil silaa su dee ne ñaar ñi dañuy jaayante kii ñëw ni dix mille la la waxoon waa ji na ko déedéet huit mille nga ma waxoon masalan suñu demee ñoom ñaar ku nekk day waat bu dee ni it waa ji dafa waxoon masalan man kat xar mu góor laa la waxoon nga ne ko déedéet man xar mu jigéen laa la waxoon su boobaa ku nekk day waat moo tax mu ne xalafa kullun minhuma lil axir ku ne day waatal moroomam summahuma bil xiyaar fi imdaa il bayi aw fasqihi suñu xoolee kenn ci ñoom waat ne lii laa la waxoon ki ci des waat ne lii laa la waxoon léegi nag bu leen neexee ñu teqali ko wala ñu wéel njaay mi amma bu dee kenn ka moo waat ka ca des nangu la waat waxi ka waat moom la ñuy wéyal mi ngi noonu lama ruya ida ixtalafa almutabayi'an wa silatu qa'ima wala bayyina li ahadihima taxaalafa yonent bi alei salaam ne ñaar ñi jaayante day suñu wuutee ci prix ba wala ñu wuute ci melokaanu marchandisme te fekk mbir ba ma nga teew ku nekk day waatal moroomam su dee kenn ki waat naw ni nangu waxam ñoom ñaar ñëpp bu ñu waatee ñu teqale leen ca la nga xamee ne nii moom la ku nekk jàpp ne moom la am mi ngi noonu kon loolu mbokk mooy juróom benn mbir yoo xam ne ay nit suñu jaayantee ba pare it am nañ droit ah xiyaar daal di ci dellu gannaaw allahuma bàyyeetuma xel ndax dana indi ak li ñuy tudde ak xàccam de waaye ñu xam ne it bokk na ci jaamu yàlla mooy nit ki daa di jënd am njaay ba pare daa di rëccu ñëw nga delloo ko xaalisam même bu dee ne amu leen woon xiyaar loolee ca jaamu yàlla ya ca la bokk kon ñu jël suñu ñeenteelu bind almaddatu rabia fi bayaani anwaa'i min albuyuu'i mamnu'a bu doon dañ lay leeral yenn ci façon njaay yoo xam ni islaam daa tere ñu koy jaayante suñu biir bokk na ci loolu منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من البيع yonent bi day tere na yenn melokaan ci ñaa ci njaay lima fiha min algarari almuaddi ila akli amwali nnas bilbatil ca la nga xam ne nekk na ca ci ñu mën a lekk alali nit ñi ci neen والغش المفدي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين ak la nga xam ne nii mooy ak wor goo mën a yóbbu ci yëkkati lii di noonoo ak xëccoo ak daggsante ci diggante jullit ñi min zalik bokk na ci njaay yooyu lislaam tere bayu silaati qabla qabdiha mooy nga jaay marchandise ma nga jënd te fekk jëlagoo ko fa nga jaay fa nga jëndi laa yajuuzu lil muslim an yashtariya sil'a suma yabi'aha qabla qabdiha mimman ishtaraha minhu du nekk di dagan ci julit nga jënd benn marchandise marchandise mi yow jëlagoo ko wëlbati ko jaay ko nga xam ne yow sa xaalis nga dugal rek jëlaat beneen xaalis ci yow amul benn effort boo def pour déplacer marchandise ma li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam iza shtarayta shay'an fala tabi'hu hatta taqbilahu boo jëndee dara bu ko jaay lu dul na da nga koo jël ay da nga koo jàpp da nga koo jël waaye bu ko jaayee fa nga ko jënde wa qawlihi man ibtaa taaman fala yabihu hatta yastawfiyahu ngalla waay ku jënd ñam bu mu ko jaayaat mukk lu dul na daa récupérer ñam boobu jël ko te mooy ceeb ak dugub ak lu mu mën a doon qaala ibnu abbas wala axsibu kulla cheyin illa misla noonu yonent bi teree ci ñam wa lool it la ñuy wax ci bépp mbir boo xam ni dañ koo mën a déplacer boo ko jëndee bala nga ko jaay déplacer ko fa nga ko jënde woon loolu mi ngi noonu ndax xam nañ ne bokk na ci rek soo ñëwoon ci bitig bi jënd fa saaku ceeb dix mille wala bëtu ko dem jaay ko beneen waay quinze mille te borom bitig moom ceeb bi génnul biti génnul bitigam moom dana riccu te it dootul nangoo jaay dix mille kon fokk yow nga déplacé ko dog koo mën a jaay waaye maadaama ma nga ca ka nga ko jënde woon bu ko jël di ko jaayoo tamit ñaareelu njaayante yi li lislaam nanguwul bayul muslim ala al muslim mooy jullit di jaay ci kaw njaayum jullit laa yajuuzu lil muslim an yashtariya axu axuhu muslim bidaa bi xamsati masalan du dagan mukk ci jullit mbokkum jullitam jënd marchandise mu jënd ko juróom masalan juróomi téeméer masalan fa yaqulu lahu ruddaha ila saahibiha jël ko nga delloo ko ca kanka jënde woon wa ana ubiuha laka bi arbaa man danaa la ko mën a jaayee ñeent masalan ñeenti téeméer wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la yabi baadukum ala bayi baad yonent bi da doon wax kenn ci yéen bu mu jaay ci kaw njaayum moroomam looloo tax ba doo yëg sa mbokk jullit it mi ngi bëgg a jënd benn mbir nga rocceeku ci suuf ne ko kaay ma jaay lu ko lu gën a yomb wala rocceeku ci suuf ne borom marchandise ma kaay ma jox la ci lu ëpp loolu déedéet ba tax yonent bi daan wax naan bu kenn jaay ci njaayu moroomam bu kenn labat ci labatu moroomam xanaa lu dul ne da ngaa dem ba yëg ni juboo wuñu teqalikoo nañu su boobaa ngay doog a ñëw mi ngi noonu suñu delloo ci ñetteelu njaay mi lislaam nanguwul mooy bay u naj mooy njaayum la nga xam ne mooy yokk prix la yajuuzu lil muslim an yu'tiya fi silatin shay'an wa huwa la yuridu shiraaha du dagan ci jullit nga ñëw ci marché bi gis ñuy waxaale nga proposer benn prix te yow bëggoo jënd wa innama min ajli an yaqtadiya bihi suwaam fa yugarrira bil mushtari bu ko defee ñu daal di cay nax ka nga xam ne day jënd boo demoon ci dara ni dañ koy def waa ji day ñëw taxaw ak xar mi bu bëggee ne waa ji borom xar mi ñaata la masalan borom xar mi na ko cent mille waa ji xam ne yoonam niwu ci moog borom xar mi ñooy ànd de mu ne ko waaw ah cent mille ah xar mi seet na de ah mënoo ko def quatre-vingt mille su ko defee mu ne ko ah déedéet mënu ma ko jaay quatre-vingt mille waa ji nga xam ne daa bëgg xar mi moom bëgg na proposer soixante mille wala soixante-dix mille dootul mën a dootul mën a wax lu yées quatre-vingt mille te it day jàpp ne maadaama kii wax ne lii kon xar mi jar na lu ëpp quatre-vingt mille loolee da ngay gis teefen teefentekat yi dañ ko doon defante seen diggante loolu la ñuy tudde naj mi ngi noonu gannaaw ba itamit mu ne wa sawaun tawataa maa saahibiha am la na doon ka doon def loolu daa dëppoo ka ka moom marchandise ma wala ñàkk dëppoo waaye loolu mu def islam da koy tere doo fekk mukk sa mbokkum jullit di waxaale yow nga ñëw dugal prix ci biir waxaale li qawli ibnu omar radiallahu anhuma ibnu omar daana wax ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aji naj yonent bi alayhi salaam day da doon tere lii di yokk prix wa qawlihi wala tanaajashu doon na waxit ci xadis bu gudd te waay bu leen nekk di yokkonte ay prix te jëbluwu leen ci la nga xam ne mooy jënd suñu demee ci ñeenteelu njaay mi lislaam araamal mooy bayul muharrami najis najis mooy nit ki jaay lu xaraam loo xam ne daa sobewu laa yajuuzu lil muslim an yabia muharraman wala najisan mi ngi noonu wala mufdiyan ila xaraam du dagan ci jullit muy jaay loo xam ne daa xaraam wala loo xam ne sobe la wala lu mën a yóbbu ci lu xaraam fala yajuuzu bayu xamrin wala xinziir du dagan ci muy jaay sàngara même bu dul naan sàngara du dagan ci muy jaay mbaam xoox même bu jàppee ne du lekk mbaam xoox wala suura du dagan muy jaay ay istati wala mayita du dagan mu jaay médd nga am sa xar xar mu médd amoo droit dem di ko jaay ci ku koy lekk wala sanam amul droit di jaay ay xërëm wala inab liman yattaxidahu xamra amul droit di denc raisin ngir jaay ko ña nga xam ne dañ koy jël di ko def li nga xam ne mooy sàngara li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha harrama bay alxamr yàlla day araamal na jaay sàngara wal maytata araamal na yitta la nga xam ne nii mi ngi noonu wal maytati wal xinziir wal asnaam araamal na li nga xam ne mooy médd ak mbaam xuux araamal na ñu jaay ay xërëm wa qawlihi laana allahu almusawirin daana waxit yàlla rëbb na ña nga xam ne ñooy defar ay nataal la gën a woyef lu ci borom xam-xam yi wax mooy nataal yoo xam ne daa am ay jëmm doonte ne ni bokk na lu jurit war a moytu mooy dessin mat nataal bu amul jëmm bokk na it lu jurit di war a moytu mooy ay photo yoo xam ne amul njëriñ mi ngi noonu wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man xabasa alaynaba ayaama alxitaaf xatta yabi'aha min yahudiyin aw nasrani aw mimman yattaxidaha xamran faqad taqaxama naar ala basira yonent bi alei salaam nee na waxtu wi ñuy witt raisin yi koo xam ne daa bàyyi toolu raisin ba mu jege nëpp nga xam ne yahudi ak nasaraan yi ak ñiy defar sàngara ñoom noonu lañ ko bëggee ko mel noonu day na xam ne tabbi na ci tabbal na boppam ci sawara ci loo xam ne lu leer la te loolu it mbokk mi ngi noonu suñu borom mu ne wala taawanu alal ismi wal udwan bu leen nekk di dimbalante ci lépp loo xam ne day jur bakkaar ak noonu lii mbokk bu ñu delloo ci juróomeel bi mooy li ñuy tuddee bay ul xërër mooy njaayum nax te loolu moom bari na laa yajuuzu bay'u ma fihi xarar du dagan jaay loo xam ne ak naxaate da caa am fala yubaa'u samakun fil ma masalan doo dem ca dex ga wala géej ga na waa ji kaay ma jaay la jën bi nekk ci biir géej gi déedéet wala suufun ala zahri sha wala kaay ma jaay la leen bi nekk ci kaw xar mi ca watagu ni xar mi ba xam leen bi nu mu toll wala janina fi batn kenn du jaayit ëmb boo xam ne bàyyi ma ba da koo ëmb mi ngi noonu ca xamaguñu naka lay demee doonte ne éleveurs yi bari nañ lool di ko def wala labanun fi daro kenn du jaay it soow mu nekk ca battu xarma muy weenu xarma wala nag ba wala samara qabla badu qabla baduwi salahiha kenn di mi ngi noonu kenn du nekk di jaay la nga xamee ni mooy ay meññeent qabla baduwi salahiha te fekk ne nekkul di feeñ ne meññeent mu baax lay doon waaye fa muy commencé di tóor tóor doo ko meññ waxtu woowu kenn du ko jaay wala xabbun xatta stadda mi ngi noonu wala xabbun xabla istiddaadihi kenn du jaay ay pepp mboq la dugub la fekk na demul ba gub ba dëgër wala silatun bi duñu nazara ilayha kenn du jaay marchandise ca kay jënd xoolul marchandise ba nu muy demee aw taqlibiha wa faxsiha in kaanat xaadira wala mu wëlbati ko seetlu ko su dee ne teew na aw bi duni wasfiha wala mu jënd ko ca kenn melulu ko wa maarifati nawiha wa kamiyatiha te fekk ne leeral luñ ko melokaanam ba lan la la nga xam ne mooy limam ba lan la in kanat ghaiba su dee ne dafa nekkul te kon mi ngi noonu fokk bala ngaa jënd dara da nga koy gis wala boo ngeen d'accord ci mu leeralal la ne mbir bi ma lay jaay nii la mel nii la toll ba ngeen dëppoo ca wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tashtaru samaka fi lma fa innahu gharar yonent bi nee na ngalla waay bu leen jënd mukk lii di jën yu nekk ca ndox loolu ak wor la wa qawli ibnu omar radiallahu anhu naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yubaa tamrun hatta yut hatta yut ama nee na tàndarama bu ko kenn jaay lu dul daa yegg fañ ko mën a witte di ko lekk aw suufun ala zahr bu kenn jaay leen bu nekk ca kaw xar ya aw labanun fi dar bu kenn ja mi ngi noonu bu kenn jaay la nga xame ne nii mooy meew ba nekk ca weenu bàyyi ma wa aw samanun fi laban bu kenn jaay niw ga nekk ca biir soow ma ca fekk teqalewuñu ko mi ngi noonu wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an bay'i samarati hatta tuzhiya qaala tuhmar mu ne bu kenn jaay meññeent lu dul ne daa dem ba wone ak ñorom ay mu dem ba xonq mi nga noonu wa qaala ida mana allahu samara fa bima tastaxillu maala axiik mu ne waaw bu dee da nga koo jaay ca meññeent bi ñoragul fal yàlla def meññante ba yàqu nooy lekk sa alalu mbokk julit wa xawli abi said alxudri radiallahu anhu naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an almulamasa walmunabasa fi lbayi yonent bi tere na lii di lii di laalante ak sànnante ci njaay والملامسة لمس الرجل صوب الآخر بيده بالليل أو نهار ولا يقلبه ليلي ملامسة موي نيت كي نيو دي جند بن يري لال كو رek te wëlbatiku ko xool ba xam yëre bi num demee bu dee ay mètre ñaata mètre la waaye laal gëm ko laal rek ñu jënd ci loolu te wëlbatiku ko da doon guddile wala bëccëg wal munabasa an yanbisa rajulu sawbahu wa yanbasu al axar sawbahu munabasa loolu dañ ko daan def ci seen marché yi kii day jël benn yére sànni ko moom it mu jël benn yére sànni ko ñu jaayante ci loolu wa yakunu zalika bay bay uhuma min gayri nazar ñu jaayante ca fekk xooluñu wala faxsin seetluwuñu ko wala taqlib ca wëlbatikuwuñ ko loolu da ngay gis mbokku islam du nangu ci façon njaay yin yu mel noonu bu ñu delloo ci juróom benneelu njaay bi lislaam aaye ba tey mooy bay o bay a tey ni fii bay a nga jaay ñaari njaay ci benn njaay laa yajuuzu lil muslim an yaqida bay a tey ni fii bay atin waahida nga tëral ñaari prix ci benn njaay kese bal yaqidu kullu safhatin ala hajji ala mi ngi noon la xidda bépp njaay dañ koy war a teg ala haddatin ci place boppam lima fi zalika min al ibham al muaddi ila aziyati al muslim ngiree li mën a am loolu ci lënt gu mën a yóbbu ci lor julit aw akli maalihi biduni haqq wala lekk alalam ci loo xam ni teguñu ko ci dëgg mu ne nag wali aqdi bay'atayni fi bay'i suwar la nga xam ne mooy tëral ñaari njaay ci benn njaay loolu ay melokaan la minha an yaqula lahu bi'tuka shay'an bi ashrati xaalan aw bi xamsati ashrin ila ajalin wa yumdiya al bay' mooy benn waaye ngi ñëw tey nga ne ko dal lii de dama la koy jaay mille francs ci teew bu dee da ngay leb nag mille cinq cent la ñu yem foofu waa ji jël dalli yu yóbbu walam yubayyin lahu ayil bay'atayni amdaha ca avant ñuy teqalikoo leeraluñu ana ban ci ñaari njaay yi lañu saxal loolee mbokk da ngay gis ne noonu la ko firi donte ne ne am na boromi xam-xam yoo xam ne dañuy bañ façon njaay ni yooyu te mooy ki wax ñaari prix ci benn njaay mooy maa ngi jaay téere bi mille francs amaa kii leb nga leb la ko mille cinq cent am na ñu bañ loolu waaye doonte ne ne boroom xam-xam yeneen yi lañ ca bañ mooy lii mu wax dañoo wax ñaari prix ca leeru lu ñu ban la ci amma buñ ko leeralee dara néew parce que mën nga ñëw kii day jënd nga ne ko mille francs la kii ñi damay leb nga ne ko mille cinq cent la loolee borom xam-xam yu bari daganal nañ loolu comme tey nit ki mënoon na ñëw ne damay jënd nga ne ko mille francs la keneen ñëw ne damay jënd nga ne ko huit cent keneen ñëw ne damay jënd nga ne ko mille deux cent jaayi prix yu bokkul naka noonu nit kiy leb mën nga koo leble prix yu bokkul loolee mi ngi noonu mu ne wa minha an yaqula lahu bokk na ci façon ñaari njaay ci benn njaay biktu ko hadha al manzil masalan bi kaza kër gi jaay na laa ko nangam ala an tabi ala an tubi ani kaza bi kaza waaye dang wala ma la koo jaay da nga may jaay nangam ci nangam dama lay jaay nangam waaye nag fokk nga jaay ma nangam loolee l'islam du nangu loolu wa minha an yubi'ahu ahad ash-shay'ayn mukhtalifayn bi dinarin masalan wa yamdi al-aqd mi ngi mel ne rek tey jii nga ñëwoon ne ko ah xar mi benn xare ngi benn bëye ngi ni nga ne ko benn bi day jaay naa la ko ci dinar te fekk leeru lu ñu ana ban la ci mi ngi noonu leeru lu ñu ana ban la ci fokk ñu leeral ne bii laa la jaay ñu ngi noonu ñu ma ci daan wax jëf ju ñaaw du yenn boucher daan def dañu ñëw fekk pël bi yor ay nagam ñu waxaale ak moom benn nag bi ngeen waxaalee ba pare rek mu daal di jël benn nag ba ko neex moom daal di cor tànk bi mu wadd mu commencé bëgg a reen pël bi na ko yow waxuñu woon waxuñu woon bi gis ngeen fekk ne moom moo ko tey sax moo ko tey waaye yàlla kulli xaal am njaay moom mbokk fokk dañuy leeral ana ban la ñuy jaay waaye kenn du jaay ci lënt moo tax mu ne walam yu araf al mushtari ayu shay'ayn qad ishtara mooy nga joxe benn prix ci ñaari marchandise waa ji fay ci xamul moom ci ban la fayal mi ngi noonu dama ruya anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an bay'atayn fi bay'a yonent bi da daan tere ñuy def ñaari njaay ca la nga xam ne mooy benn njaay kese mi ngi noonu dafa mel ni bila waaw dafa mel ni kon bokk julit nodd gi jot na insha allah xam naa dañuy yeme ni ci loolu suñu noddee ba pare ñu mottale ko ay laaj wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل حال kii def ne dafa amoon ay bori koor léegi ndax moom su wóoree benn boru koor ci ashura dana am tuyaaba ju tol noonu na am bokk na tuyaaba ji gën a mag mooy mu wóor ashura yéena ashura kese su paree mu fay boru kooram waaye it bokk na ci ngëneel bu muy amit mooy mu yéene fay boru koor waaye mu def ko ci bisu ashura bi loolu it dana ca am ngëneel donte ne ne ñaari fan yam woor mu ëpp ëpp doole mu woor ashura fay bësam waaye bu jëlee bis bi fay ko ci ashura bi it loolu dana doon loo xam ne nii ngëneel la lu mel noonu la ñuy wax ci koo xam ne nii dafa nee na daa ni soroon ne day wooru ñetti fan léegi nag ndax ñetti fan yii bu ko dëppaleeg ashura bi dana baax na am mooy li ñu wax ci ki yor boru koor rek moo dine ne bépp bisu ngëneel doomu aadama bi fay bisu kooram wala ay nisaram dëppale ko bisu ngëneel boobee loolee da ngay gis ne moo ëpp tuyaaba mu dëppale ko beneen bis boo xam ne di bisu ngëneel mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaleykum salaam wa rahmatullah ndax ki nga xam ne dafay tayle mu ñëw joxe marchandise ñu joxante un délai mu ne ko bis sàngam ba ma fayul ñàkk nga sa marchandise bi ndax loolu islam dana ko nangu mbokk islam du nangu loolu islam li mu xam mooy tayle waaye tayle naka lay demee moo dina ne marchandise baa ngi nii waa ji ñëw na leb na masalan cent mille bi mu ñëwee leb le cent mille mu ñëw tayle fi benn xar masalan wala tayle fi benn ordinateur wala tayle fi nangam suñ demee ba waxtu wa mu war a fay jot kaka lebaloon danaan ko saway fay ma su dee fayu ko su boobaa marchandise mi dañ koy jaay suñ ko jaayee mu yemoog bor ba jeex na suñ ko jaayee mu ëpp bor ba dañuy delloo borom bor ba lu toll noonu masalan xar maa ngi nii waa ji cent mille la ko lebaloon xar mii ku na xam ne ni cent cinquante mille lay jar dañ ko jaay cent cinquante mille kiy jël cent mille am kiy jël cinquante mille am su dee ne lañ ko taylee daa yées lam leb ci moom su waxtu wa jotee it lan la man mooy ñu xam ne lii temps lay jar loolee dañ koy féetewoo ko borom bor ba masalan soixante quinze mille la nga ne ko yaa ma desal vingt cinq mille waaye firiwul rek ne nit ki li nga tayle heure bu dele ba jeexee rek perte nga wala bor ba teggeeku na la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw wala kulli xaal jàpp naa ne bu dee ne amuñu ci ay yeneen laaj yuñ ci laajit ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala rek la nga xam ne mooy lii di ashura bi dafa tombeeg ngëneelu koor lundi naka jekk bisu koor la woon même bu doonte ne ni ashura mu ca te itamit ab julit di war a bàyyi xel rasul sallallahu alayhi wa sallam li mu déggaate ci war ashura mooy yàlla dalay baal say bakkaar bokk na ci li ibnu masud doon wax mooy doomu aadama ñun de jamono sahaaba yi da nga daan gis ku def benn bakkaar bu ndaw day mel ne montagne moo faq tiim ko yéen nag bakkaar lu mu réeré ci yéen dafa mel ne weñ bi naaw seen buntu ne rek da ngeen koy ëpp rek mu dem yoonam waaye mbokk gis ngeen bakkaar dafa rëy loolu tax sahaaba yi lépp luñ masaan dégg lu leen di faral bakkaar dañ ci daan profito ibrahima alayhi salaam xaritu yàlla bu lu mu wax rabbi xfir li xati'ati yawma din yàlla yàlla nag ma baal bis pécc yaa ngi dégg la nga xamee ne mooy yonent yàlla nuux rabbi xfir li wa li walidayya la nga xamee ne nii mooy mboole mi yonent ñaan nañ yàlla jéggal ba yonent bi alayhi salaam dañ naan grade bi gën a kay bi ko yàlla jox moom mooy baal ko ay bakkaaram loolu mu ñu yóbbu ci ñaar mooy moytu bakkaar suñu kéemtaleel kattan te it bari lool di jéggulu yàlla di tuub di dellu ci yàlla ngiree suñu borom yàlla baal ñu rawatina bépp occasion boo xam ne xam nañ ko ni dafay bale bakkaar loolu kon ñu xam ne wooru ashura du farata ñàkk koo woor dara nekku ci woor bi su arafat du farata ñàkk koo woor dara néewu ci waaye nag tuyaaba ju rëy rëy rëcc na la njéggal rëcc na la mi ngi noonu yal na yàlla jéggal ñu jéggal way jur yi déggal bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain